2022 chers internautes ravi de vous retrouver dans votre programme du week-end euh, tey nag ñu amal mbégte comme toujours toog fii ngir gën a mën a ànd ak yéen euh, décrypter waaye itam faram-fàcce li nga xamante ni moo ñeent ci actualité bi nag tey moo waral ba ñu daal di fi recevoir euh, kenn ki suñu invité phare di Pa Assane Seck chroniqueur taskatu xabaar également ngir gën a mën a échanger ak moom sur les questions d'actualité Pa Assane au plaisir de te retrouver ci Sénégal 7 TV itam ci émission bi di Sénégal VT la bàyyi nga nuyoo yaa Seyda. <clears throat> salaamualeykum wa rahmatulah aleykum salaam. bisimilahi rahmaani rahiim. bisimilahi rahmaani rahiim bisimilahi rahmaani rahiim. nuyu na ma la baaji. maa ngi wax baaji wala badji. boo ci wax rek baax na. tubaab day wax badji. waaw. ñenn ñi naan badji. ñenn ñi naan baaji. wolof naan baaji. Mm-hmm. baaji waay. yéen fan ngeen cosaanoo. Hmm, xam nga nag xam nga nag gis nga. Casamance ak Ndar. Euh, bu ma waaw man man. waalo bi moom boobu bi moom moom xam naa ci xam na mun naa ci dut baaraam. man dama bokk ak aw Casamance bokk ak aw ca waalo. waaw Sénégal ñëpp bokk. ñëpp bokk benn la. Mhm. yàlla na fi yàlla wàcc xéwal. ba xam ni nit ñi dañoo dem ba mel ni ba raw waa Dubaï. Mhm. gis nga ni ñoo toogee naan Dubaï tubaab yi la toog fële naan damay dem Sénégal. Mhm. di rêvé ñëw senegal hmm. yàlla ñu ko defal te ñu fekkee nag. ñu fekke ci nag ñun tamit. Hmm. Ah. te mu ànd ak tal. sanu jaboot yi profité ci bu baax. Hmm. barke Seydina Muhammad. am na solo man de c'est toujours un nga def blanc bu rafet ci ci ci kii bi. moo la weex ak Baay Laay alayhi salaatu wa salaam. moo la weex ak Seydina Limaam. dana woon mën a woon démb mu weex tal. mu ne mën a tey mu ñuul kukk. kooku moo la Baay kooku mooy euh, Baye Laye Seyni ak Alassane Kumba Ndooy uh-huh. kooku moo moom la borom bi def baa demee fii si xunt bi uh-huh. toog na fa Milan daal di génn dox wax wane woote nit ñi la def nii mu ne kaay leen nu dëkk dem na géej puusa uh-huh. géej randu mu la yoof jàmmalaaxe gi ñu dëkk sàcc. macha allah. yéen nañu yàlla gën la yàlla defal loo xam ne ay buñ ko xamoon. dëgg la de. te ñu ñu ngi ñu ngi dox ñu ngi mais man mënuñu ci profiter. Hmm. xaadimal Moustapha Seydi Haaj Malick. Hmm. nga xam ni daf noo wax ba wax nu catu karawu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. sanu maam Amady Njëgët sanu maam Amady Ndaak Seck. sanu maam Cheikh Umar Fouti mu fi dugal diini ji nag. moo ko fi jëkk dégg naa la wax sanu maam ya baax yooyu sanu maam buukunta mhm. ca njaasaan nga xam ne xadriya bi ñooma mhm. cheikh naa cheikh Saad bu Chérif waxeet cheikh naa cheikh Abou Khad Jeylaan cheikh naa cheikh Matian Chérif mhm. cheikh naa cheikh Mouhamad Vadal ay bu ñu xamoon li ñu am. Allah bu nuyoo nañu sama waay ji fi nga daanele noonu am na solo euh, bég <laughs> nga daanele am na solo euh, donc c'est toujours un euh, chaque fois ñoom ñoo safo suñu ay programme donc pasan nag sans plus tarder ma bëgg ñu gën a xóot ci li nga xamante ne moo ñeel waxtaan bi dooree ko ak actualité bi fi ma bëgg nañu dooree ko mooy retraite Moustapha Niasse à l'âge de 88 ans à la tête de l'hémicycle donc nag mu jeexal li nga xamante moo di 13 législature bi ginnaaw bu mu ko doonee ne jiite ko depuis plus de dix ans euh, tey ji Moustapha Niasse à la retraite euh, lan la la inspiré ak tamit ban jàng nga ci def. waaw euh, sunu baay bi. Mm-hmm. ndeysaan àdduna lu tëgg tas. Mm-hmm. le brillant étudiant au temps de la période préélectorale ou pré-indépendance ñëw na tey doon kilifa bi ñu ràññee ci Sénégal gouvernance yi fi jaar yëpp de Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall. Mm. ka am wërsëg la macha allah. macha bokk na. Mm-hmm. président Senghor Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. président Abdou Diouf. président Abdoulaye Wade président Macky sanu baay bi dafa war a bind. ci fu mu jaar na mu fa egsee na mu duggee na mu bokkee. nekk nag ku ñu ràññee ci Afrique. mbind bi de nee na mu ngi koy waaj sax. ci àdduna mais ci beneen mais ci beneen forme. c'est mémoire moom la ñuy wax mémoire. Mm-hmm. mu ngi kaa waaj pour wax. Mm-hmm. waaye xam nga bindkat ba nekk dafa bind selon moom selon na mu ko dundee ak la mu ko yëgee. Mm-hmm. ak la mu ci bëgg a wane. la mu ci dul nangu wane. nee na day bind sur la vraie Afrique. sur la vraie Afrique mais également euh, suñu euh, njiit yi naka lañu war a mun a yoree réew. foofu nag man danaa fa taxaw tuuti. Mm. sunu baay bi Moustapha Niass yàlla yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér mhm. ba sëtaat yi ak njaboot gi mhm. barke alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam j'ai toujours cette image mhm. les législature yi nga xam ne fekkee na ko géré ko de 2012 à maintenant am na si yu bëri yoo xam ne xew na fii yoo xam ni d'accord ma ak moom ak ñi mu àndal par contre <clears throat> l'homme d'État dans le contenant en tout cas le savoir xam-xam bi ak expérience bi ak dundin bi. Mhm. je parce que bu ci ëppalewul kenn kenn du ko si ëppale. Mhm. leneen li si nekk moo di fi ma bëgg a taxaw. mooy mhm. quand il de la vraie Afrique ak chef d'État nu mu war a mel damay am impression que dafa mel ni sanu baay bi dafa génn ci mbir yi daal na léegi nag kaay leen ma wax leen dëgg bi. ah mel ni laa wax. Hmm. wax ak dëgg. mel ni sanu baay bi daxa génn daal di ne kaay nag léegi nag ma wax leen nag li xew. lu tax impression la yëg-yëg la. parce que bu fekkee bind na ne la vraie Afrique. kon Afrique bi ñu nekk nii du vrai bi dafa am lu ci sooke dafa am lu ci lëndëm. non dafa bëgg gën a orienté nit ñi nee na. ci lu mu ci lu mu c'est hyper intéressant ce c'est intéressant. Mm-hmm. quand il parle de la vraie Afrique man ma dégg si ne. Mm-hmm. sanu baay bi kat enfin il va nous parler. il va nous dire la réalité il va nous dire ce qui se passe il va nous dire pourquoi lui mm-hmm. l'homme d'État au temps maintenant. mm atti une attitude qui a mm. Mm. mel ni lu lu contraire ak ay valeurs yu mu doon défendre mm-hmm. je na un exemple mm-hmm. Mm-hmm. bi nga xam ni 2011 jot na fii ci Sénégal xew-xew bu mag am na fi car bloquant bi ñu doon wax vingt cinq pour cent des votants war nañ mën a fal fal njiitu réew Abdoulaye Wade ak projet boobu nekkoon lu xaw a jaaxal sénégalais yi ñu ne démocratie mu ngi dellu ginnaaw ñëpp jóg sanu bàyyi Moustapha Niasse dem ba ca assemblée ba am taxawaay ba rafetuwaay parce que nit ci principe bu jógee rek dëggu la te jamono boobu li sanu baay doon xeex mooy dëgg bi noo waxtaane nii jamono bi dem ba mu jaral ko ak âge ba mu am mu gàddu doj xeer kon kooku bëgg na réew hmm. image yaa ngi bëgg réewam la de hmm. parce que jamono boobu noonu mu ko defee noonu su amaatoon dañ ko say jàppale encore moo tax bi ñu ñëwee ci nguur bi président Macky Sall yoon moom mu ànd ak moom ñu gis dérive yi fi am gis ce semblant de désacralisation de déstructuration de toutes nos valeurs démocratiques ñu jël ko rek dëgg rek dëggaat nii rek dem impression la bu ñu am en tout cas ay réalité la yu ñu dund sunu baay bi àddu si moom mu nekk ci benn camp jàpp ni daal dafa war a gérer dafa war a amaana nag mu ngi doon wax ci suuf amaana xam nga baax na léeg-léeg bu ñu waxee ne en tout cas dégguñu leen ñu addu si ñu defal leen bénéfice du doute mm-hmm. daal di ubbi prox ndoll issue de secours pour dire amaana kat ñu ngi doon wax ci suuf mm-hmm. xëy na position ba ñu nekkee moo tax mënuñu doon wax ci kaw waaye amaana ñu ngi doon wax ci suuf est-ce que kañ doon waxal dégg na leen mm-hmm. loolu aussi mën nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel mais ba tey ci demam googu nga taxaw également xam leen na ni euh, euh, moom euh, dafay retiré wu rek ci assemblée nationale mais retiré wul Euh, sur euh, si euh, le plan politique beneen mbir également xamle na ni fàttali également ni opposant yi ak ñi nga xamante ni ñoo di la mouvance présidentielle du ñu ay noonu loolu tamit fàttali na ko mu nekk ñaari mbir yu nga xamante ni wax na ko mais beneen mbir bi nga xamante ni également nit ñi seetlu nañ ko ci retraite Moustapha Niasse démb ñu ko ko doon màggal foofee ca assemblée nationale ginaaw tamit séance plénière bi nga xamante ne amoon na fa ni ki démb ñu recevoir fi tamit ki nga xamante ni moo di président assemblée nationale bu Côte d'Ivoire mu nekkoon démb seen hôte tàggatoo ak moom te njeexital ba ñu gis ni ñëpp ngi fa woon ñëpp wax nañ également ci départ am ñëpp magnifié nañ ko euh, mais ci beneen wet ga ci wàll ba opposant yi ñu mel ni yenn député yu mel ni ñoom Mame Diarra Fam ak yooyu dégguñu ba ñu defee seen sortie ñu wax dara ci lu jëm ci retraite Moustapha Niasse loolee tamit ban ban gis nga ci am alors <coughs> xam nu ñun dañoo am nit kenn matul je pense que une Mame Diarra Fam un ci Fall nekk ay député ñu jàpp leen si lu dul yoon yéen ngeen nekk ay député àdduwu leen ci président Moustapha Niass ñu jàpp sa ay député yow nga jiite assemblée ñu téye ay député si lu dul yoon àdduwoo ci président Moustapha Niass nga jiite assemblée xam luy état xam luy yoon ñuy jàpp xalifa Ababacar Sall ci lu teguwul si yoon jël ko salfaañe ay droit am en tant que député dugal kaso may nu ko sax mu taxaw expliquer défendre vous que ça fait. est ce que mën na ci àddu loo xamante ni mbir la bu nga xamante ni yoon moo ci am. aw da nga maa laaj da nga maa may ma wax. ma ma déet nag dinaa dina dinaa dinaa euh, ma amee lu may cabaxal paasan dama koy cabaxal parce que boo <coughs> boo ma nee. Hmm. baay bi est ce que mënoon na si àddu. ma ne la est ce que maam jaara faam fa mu tolloon mënoon na si àddu ci loolu. ci Moustapha Niass bu la dem. suñu baay bi te le même jour mu def ci conférence de bi nekk président assemblée yilif ay assemblée député yi. Hmm. ñu jàpp ci ay député jël seen droit de député sànni ko ci suuf. waxu ci lu tax àdduwu ci te mënoon ci àddu. mais est-ce que jàppoon ni foofu ñoom li ñuy reproché tout le temps président Macky Sall loolu def c'est-à-dire defante defante bi nga xamante ni ñoom président Macky jàpp nañu da koy def tout ñoom loolu foofu loolu lañ def ak ki nga. xamante ni moom léegi aw a fi tudd defante. Mm-hmm. defante njëkk a def ginnaaw defante ngay wax ka njëkk def boo waxee defante dangay dem ci ka njëkk def nga ne ko lu tax nga def ka njëkk def mooy ka war a protéger député protéger wu benn droit de marche consacré ñu salfaañe ko këpp ci suuf les opposants ñoo yëy danoo fat danoo mer. kon daal ñoom ni yow lu tax yow jël sa question bi orienté ko ci lan nga yaakaar ne moo tax Moustapha Niass protégé wu ñooñu ba leen jàppee. laaj ma loolu man lii ma la laaj li la am laaj. loolu man nag loolu nga ma laaj nag beneen baa ma ko gënal. baa ko kiiwee rek mu kii ko xamal la ma la bëgg a expliquer. Ah. c'est juste pour wax la ne la. mënul ko dara. pour wax la ne la. dañoo nekk ci benn réew boo xam ni. Mm. man léegi damay toog mu yàgg ma ne man damay gént wala lan. ci naga. gént bi moo la. Mm. mais ñun état bi ñu toll nii moom lañ doon dund yaa dix ans. Mm. et puis mais lan moo war a tax dix ans après ñu delluwaat foofu mu mu def ma cas. ba pare ma ne mais ñi doon kaas loolu ci jamono boobu. ñoo ñëw tey di doxal loolu grave ma ne mais li ñuy lu leen dal ba yàqu leen. ay yow loolu doy na waar. ba def leen dara. <laughs> defuñu leen dara comme la. xam <laughs> jël seen xel yi naatal ko. waaw ñu la def ñu fi def rek la dem <laughs> xoolil sanu baay bi mu Moustapha Niasse. Ah. muy dem nii. <clears throat> j'ai eu un pincement en le regardant dama ne ndeysaan àdduna ngi nii. Hmm. nit dafaa judd. mag màgget. te mag dañ koy ormaal mu jeex waaw ci kaw man nag ci kaw orma boobu nag laa doon xaar parce que député yi doonte ni peut être jàpp nañ ne dañu dund li nga xamante ni moo di injustice ak ni leen jàppe woon fan yi yëpp terewul ginnaaw ba euh, yàgg nañ assemblée ak ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Niass au bout de dix ans au moins ñu daal di koy euh, def comme ñeneen lu ñu def euh, bañ defee seen sortie bañ defee seen conférence de presse yooyu ñu daal di rafetlu wala boog ñu ñaawlu wala en quelque sorte alpha nañ ko ni quand même loolu la waaw parce que nag parce que yaa wax léegi a rafetal dañ ko war a taaral ci tënk waaw bu ñu ko rafet hmm. am na kala tàmbali yow ma laaj kan moo war a tàmbali si ñaar man bu ma fii man yow chronique nga man maa laaj nga tontu waaw bu fekkee ni kon ma wax la waaw ñaar bu ñu hmm. àndee hmm. am na toujours kenn kaa jiitu am na toujours kenn ki xam ni il est au devant. waaw kooku nekk au ma lool de je au hmm. ba tàmbalee. Hmm. kese des da kaa topp ba jubalee kese des mën na ko bañ a topp de mais bu ko toppee kenn mënu ko wax. waaye maam bu la weexee nga yokk yaa ngi ma yéen a far. déedéet. Euh, yaa ma yéen a wax boobu wax bu mat a hmm, ah, mbaam mbaam bu la weexee. nga ko yéen ñaara yem yemu leen moo la njëkk a moo la tooñ. mu leen waaw mais même bu la tooñee. waa dé moom bay maam nga wéqaat ko yàgg mu yéen a yem. waaw rapidement ñu ñu ñu boucler ci. kàddu googu laa ne dem ci beneen point. beneen point bi. Mhm. dama lay wax ba nga si àgg. ayca am na kàddu gu am solo gu suñu baay bi wax. Mhm. Moustapha Niass mooy opposant yi ak ñi ne ci nguur du duñu ay noon duñu ay noon mais raison de plus pour que bu leen defee lu tegul ci yoon opposant bi yow mi nekk nguur nga ne nguur attention lii baaxu ah. D'accord. Qu'est-ce qui empêche à Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, de dire ah attention il y un problème fii baaxula ah lii baaxul ah il peut pas le faire parce que dafa bokk ci benn camp ak âge bi mu am ak li mu représenté loolu rek mooy mooy cat bi ma am quoi. ci sa gis ba tey donc euh, manif bu 29 juin bi non autorisé déjà le fait est que déjà kenn autorisé wu ko manifestation bu 29 juin bi bëgg naa nga def ci analyse laataa ñuy ñëw euh, ci ci laaj ba nga xamante ne am naa ko mu mu topp ca. le 29 juin. waaw lu tax lu tax autorisé ko. waaw déjà dama ne bañ ko autorisé wul qu'est-ce que ça t'a fait ban ban lecture. non c'était ridicule. c'est de c'est de la ko comme comme ñu bëri nañu ko xaaree. ridicule et absurdité soxna si le 8 juin les gens ont organisé leur rencontre problème amul. pourquoi ñu koy interdire biñ ko interdire lañ ñàkk ñetti nit le 17 juin. le 17 juin. dañ ko interdire. ñële forcé ñu ñu rey ay nit encore que rey bi mënoon na ñàkk malheureusement ça fait 17 personnes sur le dos du pouvoir ñoom dañ koy bañ nag naan ñi woote marché bi la. ah mais ñi woote tamit am nañ ci part de responsable ndax ñoom ñoo woote mais su fekkee ni ñee tamit autorisé wuñu kon réew mi ka fi woote dañ la war a dóor bal. non dama ka woote tamit ba nit ñi génn ba am ñu sa faatu. waaw ma ne ñooñu tamit am nañ ci responsabilité. waaw léegi ma laaj la bëggoo ma laaj la man ah. léegi danga may may ma wax comme bëggoo ma laaj la. non man soo waxee tamit lu ma am pour bërëxal dama koy bërëxal. waaw boo bërëxalee ma tontu la. waaw ayca dañoo bind ci këyit président Macky Sall def référendum renforcé ñu ne ci këyit gi dëkk bi réew mi ni moo doxee ka am la la metti am nga droit jël sa pànkaat taxaw ci mbedd bi ni nii. du dëgg du yoon ay étudiant taxaw biir université la tàccu la tëgg ne lii du dëgg du yoon ngeen yónnee leen ay nervi ba pare weddi ko ne noonu du ay nervi ay entre étudiant la si yaa xëyti nga tourné yow boo gàddoo sa xaalis gàddu sa armée gàddu sa police gàddu sa gendarmerie gàddu sa force publique gàddu sa presse wala say presse te lépp ngànk lekk moom lépp nit ñi ne léegi comme mënatuñoo génn ginnaaw bu ñu génnee dañuy dóor ay bal kon léegi nañuy tàcc tëgg yi casserole tëgg yi weñ la ca des ñenn ñi ne non tëgg weñ baaxul gaaf la ñu si des daan ne waa kon ba nu xëyee nañuy sol la weex ñu ñëpp ñu àndandoo wala ba nu xëyee nañuy sol la ñuul ñëpp ñu àndandoo wala ba nu xëyee nangam ak nangam yow daal lu nit ñiy def pour wax ne dëkk bi dox doxul nga nee non bu ko fi kenn wax xam nga loolu na mu tudd. ala xool Sénégalais yi di leen daggal ngeen baal ma di leen saaga loolu la Sénégalais yi nag dañoo mën a muñ xulil jàmm rek la doon ñaan mu yàgg sax ci réew bi mais jàmm si kaw dëgg loolu ba yàggee gis nga frustration boobu. Hmm. ba yàggee nit ñi bu ñuy def bëreet. Hmm. billaay du ngeen ko attan. d' mais ci loolu Pa Assane euh, bi ñu euh, ñëpp d' accord nañ sur le fait que le droit à la manifestation loolu dafa nekk ak réel bu nga xam ne ku ne am nga.